mu am ñu tiit am ñoo xam ne dañoo triste candidat yi di xaar seeni résultat ay yuuxu ay jooy ci délibération jury bi ay jigéen yu daanu mbir mi métti lool président jury bi moom di wax ni résultat yu baax la waaw épreuve bi nag euh, biñ ko tàmbalee ñu ngi ci sant yàlla bu baax amuñu benn incident ci sama ces conditions la ñu def li ci war épreuve yi ba yegg si fii ci résultat yi. ci série L prime moom dafa tolloo ci góor ak jigéen waaye ci L2 jigéen ñi ñoo raw. taux de réussite bi sa dépend ci ñaari euh, option yi bu dee ci euh, l bi donc on avait 262 candidats te taux de réussite bi est évalué à 63 pour cent. bu dee el prime bi on avait un nombre total de 170 candidats taux de réussite bi 53 pour cent donc ce qui fait que alors ci ñaari série yi yëpp dépassé nañu 50 pour cent yi donc ce qui est très acceptable par rapport ak résultat global yi ñuy dégg à gauche. ginnaaw loolee nag ay candidats daal di nañu rek fësal seen mbégte gannaaw ba ñu amee seen bac. voilà dama kontaan am kontaante bu rëy surtout waaw voilà je suis <laughs> dama kontaan daal je sais même pas quoi dire <laughs> épreuve yi saf na lool saf na torop ba fogoon nañ ni sax duñ ci génn mais bon euh, alhamdulilah daal. alhamdulilah rek alhamdulilah te yàlla na ma jik rek di di mon bac à grand frère ma mère euh, Ndeye Victor Ndiaye et mon père Assane Ndao pour et toute ma famille qui m'ont soutenu et mes amis moom ndongo bile di jàngee fële ca collège bu Saint-Pierre mu ngay jaajëfal seeni professeur yàlla yàlla yàlla mujj na def ndox bu sedd yàlla def na xéewal yàlla def na xéewal bu baax. Ahmadou mais yàlla def si xéewal xoolal lii yàlla def si tawfeex mais dara incha allah tawfeex rek. jaajaf bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. si l'enthousiasme de certains candidats se laisse paraître, d'autres se mettent à la préparation des prochaines épreuves du second tour.